ñoom ñëpp bi bi bi jalaal ba lañ lañ nekk nag xam nga fuy jalaal mooy wuccu laay xay suma toolo fa sama boo yow mën laa gis lu mooy lu mooy laa mën la mooy foofu rek ah, kon nag ah, alaw mooy sëmat yow rek sëmat rek nga dikkalik dara man la fee gis mukk mukk mukk mukk moo tax xanaa xamoon ne xaarif moo am fànnaaw moo am jës bu waaye mësum xamul jës bu ndaxte xaarif moo am gis boo xam ne gis bu ko dafa des ban fii sawin dafa nekk fàddan fii fàddaan yeti kooku moo mën a def nag jeex takk des wat dix-huit ndaxte boobaa moom amul jeex amul des ki nga xam ne mooy jeexal te des fi kooku moo dikk jeexal ko des fi moom xamatul kon nag foo fa ay na barhaamu barhaamu sax xataa fa na man nag <laughs> nga nga boo di nga boo boo ko sax boo naanee da wax la bàyyi wax de ana barhaamu sax mooma barhaamu sax xataa fa na bi man de gis wax dëgg de xam nga sàngara bi boo ko naanee sàngara bi moom moo lay moo la dugg ba nga xamante ni xamatoo foo jëm ba yow sàngara bi ni mu nekkee ci yow rek moo lay te mooy sàngara bari kat bii moom loo ko gën a naanee sa ngëm yàlla nga gën a yokk sa tawit ba gën a yokk sa xel ma gën a yokk sa mbaax ga gën a yokk sa defere ko gën a yokk sa saay gën a baax sa baatin gën a baax sa baatin baatin gën a baax sa lépp baax ba ko la jege baax kooku nag sàngara boobu lay wax nan len ko way bale mo boo nané naanee mu yóbbu sam xel sangaram saayit bi boo nan dik di sa né saaga sa way da damay def yooyu rek moo tax ñu xaraamal bii de kaay leen gars yi ci bi ko ko ci digg ba nant yalla ci yalla nandal way yalla ci yalla nandal way ñun nag dañ ko wax ne dañ dégg na ko bàyyi xamna mom xamagu mo sogu ñu yalla ñu yalla mo mosal rek lay ñaan mom dégg kon ah kon nak lool lañuy wax ne kon naag fal muhibboona fi jalalati muxtalifoon nag mm-hmm. dañoo utile fi awaalim seen seen seen ñoom ñoom bi soron mm-hmm. bi xam nga euh, sàngara dafa am ay dosage naankat sàngara pire mm-hmm. moom mën naa bañ ba nañ ko ba defal ndox waaye ku tàmbali bees am na dosage boo xam ne soo ko joxee bu day dee dañ ko ko defal dosage bu ko woyof boo xam ne moom dana day dellusiwaat suba <laughs> waaye boo boo ko joxee ba xam ne moo ni màndikat yi noonu boo koy naan bu ëllëgee doo ko si sa bistrong bi day daw day dee day xam ne kii ndax li ma li ma kii dem li ma dellusiwaat mukk <laughs> moo tax nag <laughs> xam nga ñun dem xam nga mosu ñoo mos sàngara mosu ñoo fekk fu ñu ko jaxase waaye xam nañ ko fu ñu ko xamee suñ bi suñ bi bii bii bii nii boo fi xamee xam nga yëpp waaye gaay yu gaay boo ci xamee doo xam benn waaw waaye tukkat bu lay dox bu lay jox yàmba daf la cee mosal tuuti ah ba mu toog nag ngay mos ba bi nga mam commencé nag mu kii bu dugg la ah mu la yokkal ba mu yàgg mu ne eh, sawaay da ngay jënd ah nga waaye defar ba tukkat waaw ah, sàngara borom daf lay may de nga dikk bees waaye kañ ñam kañ ñam a pari pari nga dikk nag su ko defee mu jox la nga naan ñaan ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon juróom ba tàmm ko nag mu ne sawaay nag eh làmbal sa poos nag kon nag sàngara bi it ñi cee naan muxtalifoona fi awaalihim seen doxalin ya noonu dañoo sutante dañoo faccante fa minhum am na ci naankat yi man koo xam ne yaxli bu mu ëpp doole xala xaq li xelam kooku moom moo góndir xelam koo xam ne lu mu màndi màndi màndi moom moo ko jotam lu tax li kasaafati anwaari yi ndax dëgërinu leeru xaalam xaal ba ca moom leer ya ñoo foor su ko defee fa yësar dafay feeñ ah moom kooku a taxliitu fi afxaalihi bi maanaa léeg ah mu am ak jaxasoo ci jëfam Ah, fa yësunu woo jot ko nga xam ne man koo xam laa soxali mos la ñu ko mm-hmm. mañ noona su ko defee kooku nag la muy gañe gañe xol ba mm-hmm. léeg-léeg man teg jaral ga nag ah yëngal ko mm-hmm. ñamosut seen mbokk mi ne ni ni ni noppee léegi war ngeen ci wax de kii nii xam na lu nekk ci moom de fekk na yow waxtaan ak nit ñi moo moo la safoon démb safatu la ñu fa ne kin dara la ko dafa am ko dugg de fekk dara duggul ko ah kon nag wama huwa bi ma ñoonin doful de wa yata wa hamu day defé man yaqan la fahamu de deug de lo ñel ko annahu ki sindiqul kacior ki lamuy def yep nan julli la julli da fay kefir hefir la lolu ko japp ñom ñaa xanam euh, dégguñ ca dégg kaayam mm-hmm. mu ne wamaa huwa nekk na illaa siddiq lu mooy siddiq siddiq la de doo doo siddiq de mm-hmm. walakin waaye moom mm-hmm. sari ba dafa naan ca sàngara jalal ba fa sàkkar bu màndi ci wala aduwaana amul noono gu ñu noono ñun illa ala zalimin lu mooy tooñ nan tooñkat yi ne mooy ñi nga ñoo naan sàngara sayir ñooñ ñoo tooñ ñoom lañ bañ waaye sàngara bi nga xam ne mooy sàngara jalal bii mm-hmm. nga xam ne moom boo ko yokkee daf lay gën a bokk naan daf lay yokk doole yi ngëm yàlla ak bëgg yàlla ak jaamu yàlla mm-hmm. ñooñu duñ leen noonu wali mm-hmm. xam ne ñoo naan ca bistrong ba dañoo naan di wuy xaal boobu wa qul lillasi yanha xanil wujdi ahlahoo إذا لم تسق معنا سرابيل حوا دعنا فإن إذا تبنا وتعثت حقولنا وقامرنا قبل القرام تحتقنا فلا تلمي سكرانا في حال سكره فقرفها رفع التكليف في سكرنا حنا أن نلسمها بالصبر آه، بالصبر وهي مسوقة وهل يستطيع الصبر من سعيد المعنى من سعيد المعنى آه، أنا هادي الحساقي قم واحدا قائما قم واحد قائما آه، وسمم لنا باسم الحبيب آه وروحنا وقل وقال لنا جزء لي وي وي وي مشو بي نياك ñoko وي وي way ñun biñ dikke ba ci geew bi tay woyu dañ ko firi pour tekki maanaam ku mànd ci yàlla waaye ñun paase nañ fii moo tax bàyyi nee na man masuma màndi man Ibrahima man màndi te masuma dal wama xultu xaasaa saatan mu tabajan wama masani sukkurun yu koy ba aqriyan bàyyi Niass la wax de man eh, masuma màndi masumaa naan loo xamante ni dafay demal sama xel maandite masumaa jàpp ah da nga kon nag waxul waxal li la si ñeel koo xam ne yan xaa ma ngay aaye xanil wuj di ci mbëggeel gi àlloo ñaa xam ne dañoo bëgg ba nga xamante ni foo fekk rek ah ñu ngay bëngéer ñu ne ko yow luy jaayu ni nag wax ko ne ko isaa lam tasux boo mos maanaa saraabil xawaa liy maanaam mandite manditeel bëgg-bëgg daa bàyyi ñu ne sawaay bàyyi ñu ne may ñu jàmm na gannaaw mosuloo sàngaraam neex-neex bi bànneex bi bàyyi ñun jaayuñ ci àddina ci yàlla ñu jaay fay naa ñun de isaa tiit naa buñ teyee boo déggee tey tey nañ mooy buñ naanee ci sàngara jalaal wattaa sa danaa ko fay téye yi fa xool naa suñ xol bu téye yee. gars yi déglu ah ñu ne li leen gën a neex ci sama film benn waaye ma ko kër wax ci kër baay mhm. mu ne waxi saalum saalum yi indi dafa ñu neex ndaxte téye yi ba ñun xamu ñun baati arab euh, tubaab yi moo ñu jël ba mënatu ñoo firi wolof rawat na saalum saalum te saalum saalum xaqiqa la mhm. téye yi mooy lan koo xam ne dafa dem ba léegi xàndatu ak boppam ci boppam. xam nga ku dem ci yàlla ba yàlla la yore sa conduite bi yaay ko téye téye mooy ko xel ko xel ma dem ñun buñ naanee ba mànde ba suñ xel dem wataasa naa wuqoon na suñ xel mooy téye waxaamara naa dal ñu jaxase ndaxte xumóor boo gisee ñu tuddee ko xumóor sàngara ah lu mooy xam nga ñun sàngara bi ñu ko tuddee sax ci sàngara bi ah xaggut ci eh, ndaxte sàngara wax naa la ko baat la boo xamante ni wolof amul turam ci Sénégal du tukkaloo du kenn séeréer yi nga xam ne ñoom la tubaab moom sa tubaab bi nga xam moo daan indi ah, bari koy sàngara yi su jeexee nag ba mu dem wuuti yi ko ñëw ba indi sàngara bi ñuy naan ñu ne saa gari ñëw na <laughs> saa gari <laughs> kon nag ñu ne ñun ñu ne ko sàngara sàngara mm-hmm. waaye sàngara gi nag bu ñu ko firee noonu firi ko dëgg-dëgg mooy koo xamante ni mm-hmm. ah waxaamara naa muur suñ xel xamru xaraan yi mm-hmm. sàngara ak mbëggeel loolu mooy xamara xamara bu ñu ko wax xamara mu ne xamara xàquluhoo mooy koo xam ne xel ma dafa muuru ñun buñ demee ba mi nga xamante ni mooy ah, la nga xam ne naan ngay jaxase xol ba muur suñ xol bu ñu muuree suñ xol taat ak naa dañuy xotte ko nag ne fërit xotti mooy lan mani dégg nga moom yàlla rek am yàlla rek am foofa xam nga léegi yaa ngi commencé xotti waaw ñu ne nga doon wax ma ne mani foofa nag su ko defee nag ngay dem xamoon na ci mujj ngay def parti ñu ne ay dof na de dof na de mu ne dañuy taatu kon nag woykat bi mu ne bàyyi woyu woyu de woyu jàmm la ni falaa tall mu bul yedd asakraan kamande ci yàlla fi xaalis sëkkri jamono ba màndee moo tax boo fekkee naankat bu naan ci naan ci mbedd yi ba màndi soo demee ne ko xas su wëlbati ko fekk ma nga yori jaas bootu mu rey la bu ko def de foo fekkee ku màndi bàyyi la màndi ga ma màndi ga rees soo yoxoo ak moom lii xam nga ñun dañoo jàng tey jàngale bi maanaa kon nit ko même nit nit koo xam dafa màndi ci nit góor goo xam ne dafa bëgg ndaw si ba ànd ak ba ànd ak bopp sagoom bul ko yedd ci jamono boobu dañ ma sa dem kër bàyyi bay ñibbisi dégg nga benn waaye ngi nekk ak benn corom di wax ak moom ndaw si jànni ko mu mel rek tëb moto bi rek bëgg fàdd garab bi pour dee benn yoon ci yoon ci yoonu ko yoonu yoonu <laughs> ah du ñoo ko ñoo ko fekkoon kooka mandite mandi boo mand ko ko toog ne ko bàyyi am daaw si nii déedéet da nga ko wax say say xana la seqe rek xale bi ba ñu la def leen dànk rek waaye boo ko bëggee a xas foofu dafa lay sàngee dama lay mandikat boo ko boo ko xas jamono moo tax mandi nag genn mandi nag sàngara benn mandi la waaye mandi dafa bëri mandi ci mandi ci góor sa mandi ci jigéen mandi ci alal mandi ci doom mandi ci mandi mandi sëriñ sëriñ bi boo ci mandee boo mandi ci nit de ben mandi rek mo bax ci mandi mandi ci yalla mu delo ci mandi ko xamne ne man fa nga mandee du même muhammad gabo ci ca do dem de mm-hmm. kon nag falaatal mi sakran fi xaali sakri ko mm-hmm. ku mandi temps yi mm-hmm. det bu ko fa khara fa yekatna na ataklifu togel han sakrna suñ mandi ana ci ben anaat yo xamne ah lu ñuy wax naan euh, taklif euh, yoonu sariya moo tax gis nga bu fekkee ne tey tubaab yi jàpp nañ maanaam police yi jàpp nañ ko xam dafa mën di si sàngara buñ ko jàppee loo tax mooy sonal mooy dañ ko tukkeel ndax wàññi dagara duñ ko wax dara dañ koy bàyyi ba màndi nga rees bu dee ne xamante dafa tux ba ba kii dañ ko bàyyi ba ba mu tëdd nag ba nga xam ne fi ne yëpp dem na xelam mi ñu doog ko oona de ko commencé enquête ah? kon nag moo tax koo gis mu màndi ci yàlla yi bul ko ca bul ko yedd bàyyi ko rek annul simaha ndax dañ koy taqale bi sëbri ci muñ waaye yow bàyyi si jooy yi ngay jooy ci yàlla yi ngay xam nga nit dina xam màndi koo xam dafay jooy jooy rek kii li muy jooy li fekk yow jooyloo ay xarit jooyloo jëkkër jooyloo jabar jooyloo kenn nit ñi fa nekk da ngaa def jamono ba nga ko fekkee màndi ci yàlla bay jooy bul ko wax dara waaye itam ma sooqat mu koo xam ne moom bi ko ne sooqi bee ko jàpp ba nga xamante ni xol baa ngay tàkk ci yàlla nga bëgg ko wax ne ko muñal muñal fu muy muñee mu ne mu ne muñ fu may nekk mu ne ci xol mu ne ci xol ba lañ jàm fett gi ku ma koy muñee ah <laughs> ah ma koy muñee mu ne kon nag bul ko takkale muñ waxaal yestati ndax dana àttan mm-hmm. asabru muñ man koo xam ne saxaada janoon almaana ku janoon li nga xam ne mooy moo ko taxoon jóg dëgg dëgg te mooy ku janoon maanaam mooy ki nga xam ne mooy ah, la ko taxoon jóg te mooy waaja man nga ko muñ loti bëgg xum taxawal ah, waahidan wala wax di kon te nga benn xaay man nga taxaw nag jogal nag bi maanaam dafa am koo xamante ni pee bi yàlla ba moom la jël nekk ko ñëw bëgg indil ma leen moom la te mooy ki nga xamante ni mooy ah màngkat màngkat mooy xam nga léegi da ngay ay nag fële jox nag mu indil la kooku mooy màngkat bi léegi nag yàlla moom koo xamante ni moom la ko teg koo xam ne xàgg na ci critères yi mm-hmm. indil ma ko mooy xaaj osaak yaay yem yaa xam ne yaay maa ngi way bëgg yi qum wax di qaa'iman joxal te nga bennal ko taxaw wasamim nga noskal la ñel ñu bisil habibi bi maanaa nga ka ñu noskaa ñu mooy xam nga jaar jaar jaaru bi nga xam ne xam nga gëléem dañ ko defal moom duñ ko defal laam bakkat bi la ñuy bënn fii def ci benn jaaro ca la takk buum gi nga xamante ne bu ñu ko ci muy tourné moom la mu ne ko nag nang ñu màngee nag nga nang ñu nos ko ah. tur soppe ba wara yu naata nga def ñu nànk nag jëlal tur soppe ba nga def ko comme jaaro ba nu suñ bakkat yi te xacc ñu jëmi soppi te nga def ñu nànk ndaxte namm ci xeebal ñun dañoo namm dañoo ñu xeebu nañ ci kaay dem ci suñu waajee nga bëgg ñu ngi koy dem suñu waaj duñ ci xëccoo defal ndànk rek wa sun sirana fi sakrina xan xasoo dinaa way na ab sara ay naaka say an fa saamina wasul na nga denc nag ci relation secret bi fii sukkur naa fañ màndi xaana soo dinaa ñi añaane ñi ñu añaane bul dem mukk yow mi nga xam ne yaa yaa yaa xam liñ nekk li bul dem mukk de ko nekk li nga xam ne xamuñu ñu ñu añaan suñu man tigi bul dem de ko wax dana ko wax la wa in absar di nga absaral ay naaka su dee gis na ay naat sa ñaari bi sañu dara fa saami naa baal ñu nag bu dee liñ nekk yow yàlla may na la nga gis si xool ko baal ñu nag nga la waaye bu ko wax kenn kenn kenn kenn ndax lii moom xanaa koo dégg muy mbel mbeli ci mbootum yàlla ni tam da ca xamagul lu xew rek ah moo tax nag gis nga téere yi ñuy wax nii lii du mbóot lii dañ lay jàngal nooy motee mooy mosee mbóot ma waaye nag jàngale yi tax nga mos mbóot mi jàngale ko yow mi koy jàngale ak kam koy jàngal tax waaye nag waaye nag xam nag dañ koy defee baax na ci nag ndax nag gannaaw ñun dañu bëgg a xam waaje nag nañ jàng nag ndax lépp loo xamante ni da nga nekk waa wolof ne loo nekkul taalibeem loo nekk sëriñ yëpp ñun nag dañu bëgg nekk nag sëriñ ba moo tax ñu nekk taalibe dégg léegi nag yow mi nga xamante ni nag yow gis ngay suñu yëf yi ña ko gis bul fexe bañ reeñu mm-hmm. euh, euh, dégg nga yoxariku naa sikurul ahadis yi am mm-hmm. xumoo walaw laa xawaaxum fil xasaa maataar ak naa yooriku naa dana yi tudd waxtaan ya xanhum ca gaaya te kat ñoom bu ñu xanhum xanhu rek la waaye nag li tax ñu boole ko gannaaw moom bëgg moom moom xàqu moom fu mu am dem dafa ànd ak ina laa malaayikatoo kon nag gannaaw dina xam teqale ko groupe te groupe ba doon lu mu gis moom moom rek ngay gis. tuddaale groupe ba. ndaxte koo xam ne doo ñoo mën teqale kon soo ko wax nag da nga nayul ma nayul ma sa gaaña waay bul wax nayul ma sa waaja ndaxte boo ne ko sa gaaña rek moom na xam ne kuy gaañe kon nag noonu la ñu waxee ñun <laughs> ah, yohariku naa sikral ahadis yi xam-xam ca gaaña mm-hmm. suñ leen di waxtaanee mm-hmm. waxtaan waa daf ñu yëngal mm-hmm. wala laa xawaahum bu taxaloon seen bëggeel nekk fiasa suñ der yi maataar ak naat du yëngatu fekkoon ci xam nga koo xam ne safut la buñ ko tuddee lu mu la yëngati ñun nag boo gisee ñu saf ñu dafa nekk suñ deri bi ni dañ cee duy ba fees mel na saaroo tàng ne ko xam-xamal loolu la mel ne boo ko xam-xamale taal saal taal boo ko takkee boo ko xam-xamale day tàkkat kon nag boo waxtaanee suñ gaay rek suñ deri bi dafay tàkk alam tabsiril tayral muqafisa yaafata isa sakaral awtaano xanna ilal maana alam tafsar xanaa gisoo atayru picc al muqafasa ba nga xam ne dañ ko gis def ci kaaf picc buñ ko dugalee ci kaaf ga xam nga kaaf la muy neex neex neex neex lu def ñi defal lu leen defal ko picc mu daan wuti ay pepp ak yooyu nga defal ko kaaf mu defi am am ndox am pepp kaaf ko safu ko dara mu ne picc amul soxla ci kaaf yaa fata isaa sàkkara bu fàttali ko al awtaala su xelam dajee nam nekkoon ca naawkari mm-hmm. xelam daj ca mm-hmm. xam na dafay sopp ilaal ma an max naa jëm ci kër mu ne aay waay waay waay moo tax picc nekk ci biir kaaf googu nga déggoon piti piti piti piti piti <laughs> ah, mu jaare fu mu jaare kaaf gi daal ko téye léegi nag ñun ñi mm-hmm. boo gisee picc mu nekk ci biir kaaf daf lay fàtt sa rowu gi nga xam moo nekk ci kaaf gi mooy sa yaram bi gis nga rowu li coono yi bëri bëri bëri bëri màndikat ba màndi picc ma bëggul nekk ca biir nit dof ba nekk dof picc ma nekk ci bëgg nit mooy rowu buur ba nekk buur piccam bëggul nekk ci biir nguur ga safur ko dara bu ko neexoon nga bàyyi ko rek mu rowu ko rek delluwaat ci gaay bi rek mu nga noon moo tax nag soo ko fekk rek moom rek picc bu nekk ci kaaf su déggee rek toog rek rek mu ne peut-être maa ngi dem maa ngi dem waaye dem nag kon nag nit yàlla yaa ngi noonu ñoom dañoon dañ dugg ci kaaf gi nga xam ne mooy kaaf ak xaqiqa ba moo tax kaaf googu rek lañ nekk nag ñoom de kontaan rek ah dinaaw ci pays yàlla yi ah, kon nag ah, fa fa farit ah, bi taxri di ma ma ma bi ma bi fu aadihi taribul ahsa lil hasi wal maana kon nak kay mo xal la sa bu ko bu ko kontan lo fa farit na nga wuñi bi tahridi di ma bi fo adi li ci xolam ba do dik bakal ko sa waaja sama waji sa waji moy mo nangam sa waji mo nangam su ko def rek muna ah, way wax deug dëgg naa dëgg waay lii daal soo mandikat ku mandi ci yàlla bàkkal ko waayam ji rek soo ko bàkkal rek mu daal di kontaan su ko defee faltal euh, taribu day takk day baj baji al asadri bi yëpp li li si ci yëgam yi wal maanaa kon ay yëg-yëgi bitam yi ak yëg-yëgi maanaa yi mooy yëg-yëgi maanaa mooy rooxu ga day kontaan ak xel ma xol ba ak nit ak yooyu mooy maanaa yi yooyu dañuy bëgg ak lan nopp ya dañuy kontaan ak bët ya ak bakkan ba ak lam eh, gémmiñ ga ak loxo ya ñeen ñaar yëpp dañuy kontaan soo ko soo ko wóyëree waaja moo tax nag nit yàlla yi boo déggee bu ñuy def euh, bu ñuy def géeyu sikar bay bay géeyu ciment majlis ciment bu ñu koy def ñoom dañuy xam ne bu ñuy woy ci daairatu muhammadiya bi wala olohiya dañuy indi sikar boo xamante ni day dëppoo ak olohiya mooy sikar fànnaaw boo xam dafa dëppoo tawhid mhm. ah wobaatal fànnaa fii laay kun kay fa maat taaw da mhm. Ah? Mhm. booba da ngaa nekk ci pays uluhiyya waaye soo dikkee ci pays sifa nag da am nag Mouhamadou Mouhamadou Mouhamadou Amidou sama waa ji kuñ sant kaa nangam nangam nangam kon loolu na nga indi sama moo tax ñoom dañuy jël. gaay yi yéegee leen di leen wàcce di leen wàcce di wàcce nii lii boo xamoon dëgg-dëgg bu ñu xamoon daayira nañ koy defee kon dañuy wuy wuyu euh, ëwalu ba nit ñi lab ñu lab bi leen indi ci wuyu euh, saani pays saani dafa am wuyam boo demee ci wuy bàyyi fi ne mën nañoo dem ci téere bàyyi euh, moo tax moo tax firi firi téere bàyyi du gaaw a jeex ñu ne wuyu ba ko bàyyi ne wuyu booba ñu ngi toll ci distance nangam su ko defee mu wuyu leen foofu ga wuyu gars yi ba gars yi mu daal dañ fa luqi nag dikk nag ci deneen fa taw dëgg la fa tawra li wuraadin wa tawra li saadin wa aqiratu da wa awinatu fil hayyi yi nga noonu am na temps boo xam ne ñii ngay dem ñii ngay ñibbisi am na ñoo xam ne ñoo nga daal ci quartier bi rek boo demee noonu la ko bàyyi wooye boobale kon nag mi ngi wax na gars yi nga xamante ni euh, catégorie yi nekk si biir ëtt bi dañu nekk ay catégorie kii tarbiye ji kii tarbiye ba am jës bu ak yaa xam ne dafa boole jës bu bàqaaw fànnaaw fànnaaw bàqaaw kooku la ñetti catégorie yi nag su ko defee booy wëy damaa bëggoon tey ñu defal espace boo xam ne fii buñ ci accès ba nga xam ne dëgg nit ñi bëgg nañ ko daañ indi wuyu bàyyi ba ba ñu gàmmooti léegi ñu fexe nag ñi ñuy gàmmoon ñu xam nag tërin lu gàmmo yi fii buñ fiy wëy fii lañ toll booba ñu ngi bàq pays nangam pays awlo bàqim lii la pays aqro bàqim lii la pays saayro bàqim lii la pays baat Baye Niass rek nag boo demee ku la ku ko xam ne mën na ko génne ci téere sëriñam mm-hmm. na ma ko indil man de bu dikkee fii ma génne ko ko ci diwaan bi génne ko ko jaame bi ni ko bàyyi woy woy yi ba mu koy woy fii la woy yi ba mu koy woy fii la mm-hmm. ah xaw ma nag ñun nag ñun nag dañoo des gannaaw léegi ba léegi bàyyi nañ jigéen ñi sax mm-hmm. jigéen ñi nga xam ne moom neex rek jënjël ah woy woy yaata yu mel ngir fi ne waxatuñ ci woy yooyu daara daara daara daara daara ñun dañoo dee wett fi ne ni du wuyu aaxiru du gaaw saayiru du baat doo demee ci gàmmu yi doo ci dégg benn léegi ah moo tax nag suñu wooyu suñ kii bi suñu ah, suñ njàngale mi ah. bilaay mooy njàngale mu wér te mu wér mm-hmm. waaye aka naqaree gëm mm-hmm. aka naqaree nangu kon nag lii de lañ fi nekkee ñoom ko nag mm-hmm. kon nag kasaalika nu ko noonu arwaahul muhibbina ruux yi nga xam ne ñooy ñu soppi ña yaa fata yow waa ji nga xam ne xamuloon mbir mi doxee taxarakaha yëngal na ruxu ya al aswaaqu mbëggele fuñ jëm lil aalami ci aalam al asna aalamu bi nga xam ne moo gën a kaw ci aalam yi moom mbëggeel yi bañ lëngee bañ yënga tëruw yi ñu ngi jëm ci aalamul asna te aalamul asna mooy xaalamu muhammad yé foofu mooy bi gën a kawe ca kaw a kaw te du ca kaw a kaw nag mm-hmm. ci waaju kawee ci màrt ba mm-hmm. ñoom buñ déggee wuyu rek wuyu foofu leen delu jaar mm-hmm. loolu day bàyyi ne am na koo xamante ni moo ko doon wëy eh, ci seen xaal boobu eh, biñ nekk ci mànt bi ci yàlla waqaal wax naa yahya yahya ibnu maas yi yahya ibnu maas bu ne law daarat bu wëndeelu woon alsinatul aarifina lamiñ ñi nga xam ne yàlla maa naa si ànd ak nit ñi kamaa tadaaru tadooru naka lay wëndeel xulóobum seen xol maa lay ànd ak yàlla su fekkoon ni xol làmmiñu xaarifina yi seen xol ya nam korosé da ànd ak yàlla di tourné làmmiñu noonu la ànd ak ñoom ñuy tourné la xila nañu wax ne ñoom noonu dañoo dof kon dañuy wax ne ñii dañoo xam nga ñoom boo gisee kon xaarif dafa dafa am an nag an nag dal mm-hmm. waaye nag xoli xaarif yi korose pay bi yàlla bi di ànd ak tourné mm-hmm. su fekkee làmmiñ noonu lay waxee ci kaw nit ñu koy dégg mm-hmm. kon dañuy wax ne kii dof la waaye nag dañ caa ànd ak sago nag ba ñu koy mos muy neex loolu ñu bàyyi ko ci biir noonu de wax nit ñi wax joo xamante ni moo tax yonent daf ne sant nañu ne wax nit ñi ñu mën a dégg waaye suñ fekkoon ne dañoo mën a wax la nga xam ne moo ci nekk ci am jamono boobu kon neex ne innahum la muñ su jaajatu su jaajatu durna yaxsabul jaahiloon anna junin na maa junin na uma bina min junoonin bal sarim na moo daamatan fa xam bëggoon eh, ñi nga xam ne ñooy nekk ci daayira yi nañ jël woy yi di ko defee fànnaaw dañuy dafay dafay gën a dafay gën ñu ne xay suma daara taa yoo xamante ni wëndeelu na ci taabalu naanekaay bi mm-hmm. asu jaajatu weer ya mm-hmm. dur dañuy wëndeelu ànd ak moom mm-hmm. ñun bu weer yi tournoo ñu ànd ak weer yi na may tourné yéex sa ba dafa jot aljaahil loolu ñu xamut anaana ñun julli naa dañuy yàpp ne ñoom ñii ñu ne waaw ñii dañuy doon ay lii la waaye yow xëy doo wax mu ñëw ba jeex na <laughs> ah, junni naa parce que nga fii ne gis nga dugg duggee ci ak fannaaw léegi tey uh-huh. ngoog mi ngi nii tey dañ dugg ci kii rek fi mu toll <laughs> dégg <laughs> de la ilaha illallah taa yoo xamante ni daal kaasu taabal ji tourné na uh-huh. ah yasabul jaahil ana junni ñi xam dañu ah kii ñii de dof nañ dof ñii sama jaay seen jàng yi ni ma ko digg bi ñii ay dafa fa faral ah mu ne maa junin naa kenn defut loo wuma bi naa min juno nekku benn ndof nekku ci bal sarim naa naan nañ moo daa matan sàngar sax fa sakkir naa kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa la ilaha illa